mbokk yi daleen ak jàmm marché Sandaga li ñu xëyee ni ki dem démb du jàmm ak xaruk benn takk der si digg marché ba Vox Populi xëy di xam ne ne boobu boobulee policier mi ngi doon wuyoo si turu Gabriel Bass moom may nekkoon agent de circulation ay ciseaux la jam si biir ba ba di faatu foofu si digg marché ba bu buñ sukkandikoo si yéenekaay bi di Vox Populi am na yenn seede yi ñuy wax naan moom doroon am tawat joo xam ne da koy faral di daaneel la turbine moom xëy mbir mi yéem ko lool tax muy samp laaj naan lan moo waral bi le policier daal di xaru foofu ci diwaanu Sandaga l'observateur mel ni ku si am ay tontu indi ay révélation si faatuk ak xaru ki nga xam ni moo di Gabriel Bass foofu ci diwaanu marché bu Sandaga kenn si naataango policier am nekkoon ab collègue am mu ngay biiral ay kàddu naan kenn si ay tantam mas na ko wax ne moom mi di Gabriel baas dafa doon faral di def ay crise Thérèse Bass nekk mag bu jigéen si Gabriel Bass moom it mu ngi naan rakam ji nga xam ne doon nañ ko wooyee Blaise guddig laataa muy faatu indi woon na ay coow foofu si biir këram Bisanti Bass di bàyyub Gabriel Bass moom i faatu moom mbir mi da koo jële kaw naan waxtaan wu mujj wi ma am ak sama doom amul benn yoon boo xam ne xalaat naa ne si biir xelam xaru mu nga ca source a moom mel ni ku naan bakkanam kay si àllarba ji la yàlla tuddoon na la yem waaye moom mii di Gabriel Bass njëkkoon na fee ji ma xaru donte antuwul woon moom takk der bi takk der yi doon amal ab opération foofu sa tëri Diallo si diwaanu Thiaroye moom am nañu jafe-jafe lool ngir yóbbu def defkatum ñaawteef bi nga xam ne moom lañ doon bëgg a teg loxo moom moom nag si mbirum dorog ak jaay yamba lañ ko doon toppee waaye dafay mel ni que jiite boobu lee gang di baron ba comme nañ koy tuddee moom bëggul woon ñu yóbbu ki nga xam ne ab lieutenant la tax mu jàppanteeg takk der ya mel ni ku leen ëpp doole dóor leen ba toj gémmiñu benn takk der ba ak bakkanam donte ñoom ci civil la ñu nekkoon ñay tojante bakkan ak gémmiñ te laalante wuñ jamono ji moo di ñi nga xam ne ñoo bokk si biir parti bi nga xam ne moo di APR foofee jamono ji mu ngay mel ni sabar gu tas mel ni léget gu toj fu nekk aw xaal aw jëm fa vox populi xëy xamle ginnaaw bi nga xamante ni bii gis na ne ay responsable ñu ngay yàkkante musiba ak mbelengaan waaye tamit géru positionnement militant yi nga xam ne ñoo njëkk bokk ci parti bi mer ba futtu waaye it ay règlement de compte mel ni moo fës si parti présidentiel bi la tribune moom xëye ki nga xam ne moo di Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi nga xam ne bii mu ngay tontu ki nga xam ne moo di Yakham Mbaye ak ñenn si ñi nga xam te bii ñoo koy song si mbirum jiw yi nga xam ne ñu ngi koy wasaare fii si réewum Sénégal Moustapha Cissé nag yéen bi naan teg na jamono ji bazuka la génne le témoin moom métti bu baax a baax guerre boobu nga xam ne moo am si biir APR naan lii dafay gàkkal bu baax a baax nag li nga xam ne moo di deru réewum Sénégal mel ni nag doomi réew mi mu jox kaddu gi moom yéen kaay bi gi ñoom ñëpp ñu ngi ñaan président de la république moo daal di dakkal coow li nga xam ni moom moo fa am na sifflet feew récréation bi jox kàddu gi ba léegi docteur Momar Thiam moom mu ngi naan nag li nga xam ne moo xew si biir APR dafa ñaaw lool te it dafay gàkkal li ñuy wax bonne gouvernance fi si biir réewum Sénégal xët-xët loo gi nga xam te ni bii responsable politique yu parti nguur gi amal na ko nguur gi ak ay ministre am dafay mel ni am na ak xaj ak seen goo xam ne moo si am loolee la enquête kay xam le ginnaaw bi nga xam te ni bi càmbar na mbooleem budget yi nga xam ne moom la ñu natal ministre yi fi nekk moom moo defar li ñuy wax ab top 10 maanaam fukki ministre yi nga xam te bi ñoo ëppale budget ci gouvernement bu Macky Sall mu ngi naan am na ministre yoo xam te ni bii seen i budget dun na lool am na ñu si yemle am na ñoo xam ne daanaka li ñu am bëriwul ba sax kenn du leen ràññetle mu ngi naan Mamadou Talla bu éducation maître Omar Youm bu transport ak Mamadou Makhtar Cissé bu énergie ñoom daanaka ñooy ñett ñi fa jiitoo waaye ñooñee buñ leen xaalalee tubéy man su fay moom caaya lañ ko xaalal maanaam daanaka ku yor gouvernement si biir gouvernement bi la. ginnaaw budget bu duun boo xam ne am na ko. jeexal ak wàllum tàggat yaram ak suñu làmb bi nga xam ne mu ngay xëyee di wax naan ay revanche nag mën naa am si làmb ji mu ngi naan Bombardier ak Eumeu Sène daanaka ñu ngi koy démarrer si jamono ji. Maxime Bergan di wax si biir suñu làmb naan Bombardier jekk na landing bi nga xam ne mooy agent bu Eumeu Sène naan mu ngi xaar ñu daat koy woo. Balla Gaye 2 moom jamono ji mu ne jekk na ngir janoo ki nga xam ne moo di Boy Niang bu yàggee rek si moom la des stade yéene kaay xëy fësal photob Sadio Mané ak kàddu yi ki nga xam te ni bi moo di Madi Touré mi nga xam ne moo di président bu génération foot moom Madi Touré nag mu ñaaw lu baax a baax ni nga xam ne noonu lañu ñu géré image Sadio mu ngi naan image Sadio Mané bi niñ ko yoree dara baaxu si te loolu mën naa gàkkal lu bëri si ab carrière am jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba incha allah